tey jii ñoo fi daje woon ñun ferrailleurs yi ak exportateurs yi ngir waxtaan ci lu jëm ci suñu secteur ndax secteur bi gis nañ ne jamono jii bari na ay yenn wax ak yenn jaxasoo yu ci commencé di am gis nañ yenn ay nit yoo xamante ni commencé nañ génn di am ay wax yu ñu ciy jëmal ngir bëgg jaxase suñu secteur moo tax tey ñu daje ngir bëgg xamal état du Sénégal. rawatina ki nga xamante ne nii mooy ministre Abdou Karim Fafana ginnaaw bi nu ko santee gërëm ko ci jàppale ak taxawaay gi nga xamante ne nii amal na ko suñu diggante ak moom ndax gis nañu ne depuis mu ñëw ci ministère bi ba léegi jox nañu loxo jox nañu nopp jox nañu bët te it lépp lu jëm ci secteur bi it tëjaluñu buntam benn yoon te lépp lu ko ci président bi santoon tamit gis nañ ne am na ci taxawaay bu rafet boo xamante ne sax faw na suñu njort ba tax na ñu gis ne ñun suñu secteur bari na ay nit yoo xamante ne nii dañ ci commencé di dugg bëgg ko politiquer te ñun duñu ay politiciens ñun ay liggéeykat lañu. ñu ngi woo tamit état bi ci lépp loo xamante ne nii moo jëm ci dialogue ak ñu waxtaane lu jëm ci mbiri secteur bi li nga xamante ne nii moo nañu fi daxa daje tey ginnaaw bi nga xamante ne nii sant nañu tamit dese yi di jiital ci cant gi Aline Badara Ba ak Samuel John gis nañ ne am nañ taxawaay bu rafet ci secteur bi te it ñu leen di gën a soññ ci li nga xamante ne mooy dépp agréé yi ñu gën ñu ci jàppale ba ñu gën ko taxawal ba lépp sotti balaa yàgg dara ministre bi tamit ñu di ko gën di woo moom Abdou Karim Fafana ci jàppandaluk secteur bi ci lu jëm ci financement ak gën a taxawu sénégalais yi ba nga xamante ne nii seen liggéey ngir mu gën a avancé gis nañ ne tamit am na ay quelques jafe-jafe yoo xamante ne nii am na ci suñu diggante ci ak euh, industrie yi mu jëm ci côté protocole bi moom ay manquement loolu lépp tamit ñu bëgg nu gën a yaatal waxtaan wi ba gën a taxawal lépp ba gën ko defar ba nga xamante ne secteur bi dina génn ci bépp jafe-jafe ba ñu mën a dem ci liggéey bu tege ci aw yoon. fi ñu toll nii daal bi nga xamante ne nii ñun ferrailleurs yi daje nañu ba waxtaan li ñu bëgg mooy état bi ñu amal waxtaan yu yaatu lu jëm ci secteur bi. gis nañ ne tamit lu jëm ci wàllum armignon bi gis nañ ne am na ay fabrique yoo xamante ne commencé nañ fi ubbi. ñu jëmee ci loolu loolu lépp ñu bëgg ci waxtaan ba nga xam ne dinañ mën a taxawu fabrique yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal waaye tamit ñu mën a taxawu acteurs ferrailleurs yi nga xamante ni ñooy liggéey ci secteur bi ba benn jafe-jafe bañ am lépp ñu waxtaane ko ba lépp tamit tege ci aw yoon fi mu nekk nii tamit gis nañ ne secteur bi am na ay nit yoo xam ne jaxasoo nañ ci suñu biir te duñ ay ferrailleurs tekkiwuñu dara ci secteur bi doon ay politiciens bëgg politique secteur bi ñuy xamal tamit état Sénégal rawatina Abdou Karim Fafana ne ñun newuñu ci ay coow nekkuñu ci ay xuloo ci waxtaan lañ nekk ci liggéey la ñu nekk lépp ci àdduna li ñu gëm mooy dañ ko war a waxtaanee kon nag dañoo bëgg ñu ubbi waxtaan wi ñu gën a yaatal comme ni mu koy defee parce que tamit lépp tege na ci aw yoon li nga xamante ni nag mooy li ci gën a nekk farata jamono jii mooy ndaw yi nekk ci biir secteur bi wax dëgg yàlla ay ndaw yu am fulla lañ ay ndaw yu am jom lañ aw ndaw yu ay ndaw yu am yu nangoo liggéey lañ kon naka lañ leen di gën a mën a jàppalee ba gën leen a taxaw ba seen liggéey gën a mën a avancer loolu tamit ñu ngi ko ciy woo bu baax a baax donte gis nañ ne tamit moo ngi ci. Nous avons été violemment secoués par le décret pris par l'État visant à interdire l'exportation de l'aluminium jusqu'à nouvel ordre. Cette décision risque de mettre en mal plus de 100 000 ferrailleurs et de nombreux exportateurs dans, sur notre territoire. Autrement dit, de centaines de milliers de familles ainsi que de nombreuses sociétés d'exportation, dont la mienne, risque de se retrouver dans une situation précaire si cette décision est maintenue. Dès lors, la question que nous devons nous poser est la suivante. À qui profite réellement ce décret Mais avant de prendre une si lourde décision, il faudrait d'abord l'analyser sous tous ses contours. Tout d'abord, il est plus qu'évident que les industries locales ne peuvent pas absorber l'intégralité de l'aluminium disponible sur notre marché. et procèdent souvent à du tri. Pour aller plus loin, avec plus d'offres et moins de demandes, le marché de l'aluminium risque de totalement s'effondrer. C'est-à-dire, les ferrailleurs seraient obligés de vendre leurs produits à bas prix au bénéfice des industries. Et je dis, certaines industries qui, eux, après l'avoir acheté, transformé en lingots, le revendraient plus cher à l'extérieur. Parmi les manquements, je peux citer le problème des paiements des industries vis-à-vis des ferrailleurs, des déchargements très lents, sans oublier la quantité non absorbée des dudites industries, raison pour laquelle nous sommes vraiment frustrés. Dans ce sens, j'invite l'État, le Premier ministre, à favoriser les Sénégalais dans la distribution des licences, car vraiment, si tel était le cas, nous n'en serions peut-être pas là.